bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin la xawla wala quwata illa billahi alil azim ñu ngi ubbi ko sunu turu boroom di jullu ci sang bu tedd bi di sunu yaakaar tey ëllëg Seydina Limaamu di ñaan sunu sang sunu yaakaar Sërif Abdoulahi yal na yàlla wéral ko yal na ko yàlla daaral moom njabootu Seydina Limaamu Laay gépp ka jiitu ca njaboot ga di sunu maam Duudu Maxtaar ibnu Seydina Ma Njoon wàcc ci njabootu Seydina Limaamu gi fi des ba ci Seydina Maam Alasaan di caatu Seydina Aboubacar ak njabootu seydinaa Limaamu doom yi ak sët yi fi des yal na yàlla guddal seen fan di nuyu mbooleem fu ab jullit ne di ñaan ci bis bi lépp lu ñu fi ñaan yal na ko yàlla defi yiw bu ko defee yiw mu def ko jàmm mu wàccee ko ci senegal ba mu walangaan ci àddina bi di kontaan bu baax ci question yi ñu posé mooy lu waral appelu Seydina Limaamu yàlla dafa dogal 1883 ci dimanche ci weeru baraxlu ci benn fan la sanga bu tedd bi di Seydina Limaamu Laay taxaw ni aji bu yaa maxsaral insi jinni inni rasuulillaahi ilaykum ba mu wootee wooteem bi doomam ju ñuy wax Seydina Isa Ruwalaay di taawam moo njëkk a toog ci xalifa Seydina Limaamu def toog 1909 ba 49 bi mu génnee àddina Seydina Mandione toog 1949 ba 71 Seydina Mandione noppaliku bàyyi Seydi caw mi nga xam te ne nii appel bi ñuy appel ci moom la soxee ko mu toog 71 ba 87 ci biir toogaayam moom bàyyi Seydi Thiaw doom ci Seydina Mandione di ñetteelu xalifa Seydina Limaamu moo sos appel bi nga xamante ne moom la ñu appel mu tombeek cent ans yu wooteb mu dundal ko def ko muy appel bu Seydina Limaamu muy téeméeri at boobu ba léegi ba mu fi jógee moom Baye Seydi Thiaw rakkaam ju ñuy wax Seydi Maam Alassane daa di taxawal appel bi ba ni mu fi jógee yàlla teg ci loxol Seydif Abdoulaye ñuy ñaan mu yàgg fi ay rakam taxaw ko taxawaay bu am solo ñu bañ a guddal jël thème bi nga xamante ne nii sunu imaam di sunu maam Seydi Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Aboubacar moom la waxtaane tey muy tey ak dal ni ko Seydina Limaamu jàngale kër yi rëndoo na ko àddina waaye bu mu egg seeni xol. ko lu ñëw na ngeen ci ànd ak dal ànd ak ci ak teey ndax moo leen ni man euh, may yoon wi ngeen war a mën a jaar bàyyi laay nag addinaam dundam gépp am njàngale la dëkkul naan aji bu daayee laa yaa masara insi wal jinni inni rasulillahi ilaykum 1883 ci 10 bi bàyyi laay woote ne aji bu daayee laay ca la ci pare ba mu wootee wooteem ba ca la ci paree dundam gépp Seydina Limaamu 1883 ba 1900 ba ba 1909 Baye Laye jàngale rek lay dëkk da ne fanzuru ilayya mu ne fax faxtaduuni mu ne fii fixli mu ne waxaw lii mu ne roy leen ma mën limaamu ci samay wax assi samay jëf kon donc moom dundaam Seydina Limaamu am jàngale la moo waral ñu sos appel boo xamante ne saa su ne sanga bi di Seydi Mouhamadul Mokhtar day jukki ci xutbay Seydina Limaamu di ñu ja di ñu di ko yeesalaat di ñu fàttali njàngaleem seydinaa Limaamu ren nag mu jël ci thème bu am solo ngir contexte bi ñu ne muy pandémie ni bi bi nga xamante ne ni dafa am ci àddina bi yëpp ba law ba ñëw ci Sénégal ba moo waral ñaari at yu ne ñu koy appelé nii waaye ren sant nañ yàlla bi nga xamante ne dem nañ toog ci beeñub Seydina Limaamu tudde fa même bu dee ñaari kalimatu laa ilaaha ñu ngi koy sant yàlla. di dellu di fàttaliwaat taalibe yi li nga xamante ne ni Seydi Mouhamadul Muxtaar ibnu Seydina Aboubacar moom lañu jàngal tey muy dal ak teey ak tekk que lépp lu mën a ñëw ci àddina na nga ànd ak dal na nga ànd ak teey bu boobaa di nga am xelu noo koy mën a diriger. nee naa njaboot gi nga yor sa biir kër sax soo leen bëggee yor ci fitna du dem ak dal ak teey mooy tax nga mën a yor sa njaboot waaye quartier bi nga mën a nekk ngay chef de quartier bi. ak xët ak xirte mënul tax nga yor quartier bi dal ak teey mooy tax nga mën a yor quartier bi ki nga xamante ne ni tey moo jaboote lépp luy sécurité ci dëkk bi ñu koy wax ministre de l'intérieur xirte ak doole mënu kaa may ba mu mën a diriger ab dëkk ndax bis bu ko defee day indi jëye mooy waral fan yi li fi xew tekk ak teey mooy waral ba nga xam yow mi nga xamante ni ñii nga jiite xam fi ngay jaar waaye ma dellu ci ci tekk ak tey bi dellu ci ci président de la république son excellence monsieur Macky Sall que ma koy wax ne que thème bi nga xamante ne Seydou Mouhamadul Mukhtar moom la joxe tey muy dal di tekk ak tey loolu mooy yor am réew ak diplomatie kon saa su ne bu fitna amee bu xërte amee ñu ànd ak dal. nañu ànd ak teey nañu ànd ak tekk ba mën a xam yoon wi ñuy jaar waaye ñun tamit xibaar bu mën a ñëw ci ñun ñun saabay Seydina Limaamu nañ ci ànd ak tekk nañ ci ànd ak dal ba mën a xam fi ñuy jaar defe naa sanga bi loolu mooy tamam tayam bi nga xamante ne ni moom la jàngale ne maamam Seydina Limaamu moom la ñu jàngal mooy riiranoo ne nag waa àddina waaye bu mu egg seeni xol mooy lu mën a ñëw rek soobu leen ci waaye na ngeen ci dem ak xel ak technique ndax yàlla ci alxuraan saa yuy wax danaan yaawulil albaab maa ngi wax borom xel yi nga xamante ne nii lu mën a ñëw du ñu jiital doole du ñu jiital fitna mais xel la ñuy jiital te tey jii sanga bi loolu la jàngal Seydi Mouhamadul Muxtaar mooy lu mën a ñëw ci àddina rek buñ ko defee doole buñ ko defee fitna mais nañ ko defee ak xel ndax bu ñu ko defee ak xel dinañ xam yoon wi ñuy jaar ndax àddina doole ak fitna yorul àddina guerre mondiale sax ci taabul la mujje ñu toog waxtaan. kon àddina lépp lu mën a ñëw yow borom kër gi yow laa njëkkee yow chef de quartier bi ci yow laa ci yow laa yow laa ciy teg yow ministre de l'intérieur yow laa ciy teg yow président de la république yow laa ciy teg door cee teg imam bi nga xamante ne nii moom mooy taxaw ci minbar bi door cee teg sëriñ bi nga xamante ni taalibe yi moom lañ yaakaar mooy que lu mën a xew ci àddina rek na ñu ànd ak dal na ñu ànd ak tey sanga bi tey loolu la jàngale ndax mënuñu tëb beneen waxtaan lu dul li nga xamante ne Seydi Mouhamadul Mokhtar ibnu Seydina Aboubacar moom la jàngale ci appel bi mooy dal ak teey ak tekk boo seetee contexte bi ñu dundee ci appel bi dal moo ñu ko may teey moo ñu ko may tekk moo ñu ko may ndax taalibe yi mënoon na ñëw fipp ne dañuy appel par force bu boobaa kenn du leen mënal dara mënoon nañoo jaay doole ne dañuy appel par force bu boobaa kenn mënul leen dara mënoon na nañoo wane seen bopp ne dañuy appel par force bu boobaa kenn du leen mënal dara mais dañoo ànd ak tey déglu sëriñ si ànd ak dal déglu sëriñ si ne tekk déglu sëriñ si ba moo tax bi sanga bi jàngalee ne fu waay mën a nekk na fa toog nga appel moo waral fu nekk waay toog fa appel moo waral ñu dund contexte bi mais ñoo ngi sant yàlla li ci ëpp solo mooy ñaan te ñaan gi fu waay toog boo ñaanee dina egg si suñu borom kon dañuy ñaan ci barkeb Seydina Limaam di ñaanal sunu sang yii ñu yaakaar yaakaar seen maam di leen di leen di leen bége ci seen xam-xam ci seen taxawaay ndax xëy na amaana bu ñu meloon neneen ñun tamit mën nañoo mel neneen mais li ñuy li ñu jàngale ci xutba bi tey ñoom loolu la ñu doxee foo leen fekk dañoo dal foo leen fekk dañoo tey foo leen fekk dañoo déggoo yàlla na yàlla dëgëral seen diggante yàlla bàyyi fi sunu sang sunu yaakaar Seydi Baye Abdoulaye mu yàgg fi lool tey ñaan Sénégal yàlla defal fi jàmm di tëje sama wax ci lii nga xamante ne nii moom la seen Muntaxa def ci Sénégal ñun ñu koy rafetlu ñun laayeen nii bu baax a baax a baax mooy alal jii mu yëkkati def ko ci néewi doole yi ñi nga xamante ne nii contexte bi ñu doon dund fan yi daf leen laal ba mu def ko ci muy wane ne moom citoyen la avant dara ñu ngi ko ciy gërëm ñu ngi ko ciy sant di ko ñaanal yan bii mu yanu yàlla na ko yàlla oyofal di ñaanal bépp kilifa diine boo xamante ne nii ab yan tegu ne sa kaw yàlla na la yàlla oyofal te yàlla may la li Seydi Mouhamadul Muxtaar wax muy dal yàlla may la tekk yàlla may la teey di ñaanal bépp laayeen boo xamante ne nii moo xam ñi ne Sénégal moo xam ñi ne bitim réew fépp fu ab laayeen nekk rek lépp looy yootu fa nga ne yàlla na ko fa yàlla yombalal di leen wax ni ñun suñu référence mooy Seydina Limaamu nañuy nañuy delluwaat suñuy xel ci lu mën a xew rek nañuy jël Baay Laay tekk référence bu buñ ko defee référence rek du ñu du ñu jàq te du ñu jaaxle wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Mouhamadou doom si soxna Koddu ibnu Seydina Maam Alassane ibnu Seydina Ama Ndione ibnu Seydina Limaamu Laay lu fi dëng ngeen xam ni jaam la bu matul waaye lu fi jut ngeen xam ni yàlla mi mottali moom moo jubal kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. li kulli man lawul adab له الحمد لله الذي منا تلاب نسيخة لكل من له الأداب لما منين دين لا بيرنتي bul xiise bul iñaan te bul noonoon tey lana limaamu ci diineem ak na mu ko seddale laa biir ci yàlla ak rasuulu laayi ak téereb yàlla ba ibaadu laayi ak téereb yàlla ba ak ibaadu laayi ginnaaw salaa biir ci kilifa yàlla tegal jullit ñu loolu mooy la sellaaw labir ci yàlla mooy nga xam ne am naa weetal ka gëm ay ndogalam lii wóor naaw laabir ci yonentam bi mooy nga gëm ne yàlla ko yónni ci nitam ta xam ne ku yàlla yónni boole ko keemaan yaa yey daarel yónnen ba ca mboolem gox yaaw mooy moojizaat ya muy lëkkool fa yàlla moo tax ñu xam la muy solo fa yàlla ngay jëfe su naam te digal ka nit ñaa ci kuy nangum digal ci mboolem nit ñaa la biir ci téereem ba nu naan furxaana nga xam ne yàlla moo wàcce qur'aana ci xayru naa si ngir xamal atem yaa dogal wa ak sañ-sañ yaa ngay jàng téere ba tey seen maanaaya tey jéem a def ndigal ya ca aayam yaaw te nga wattu mboolem lu muy bañ ci furxaan te ngay digal loolu ci mboolem ixwaan bul fàtte laa biir ci kilifay diine mooy nga di leen dimbali tey booleeg yéene ci lépp lu ñuy aajowoo fi diine te nga di leen toppa fi amri diine bul fàtte atiu laa wa atiu rasula ulil amri minkum fatbiu ji yàlla wax ci sooratu nisaa'i sadaqalaahu saaxibul alaayi laa biir ci mboole muslimiina saaxibiina mooy nga di leen soppa kama xaala nabi almuminu yuxibu almuminu kama yuxibu nafso lii day woor na maaw wa tasliman ala sayyidil wara maam li maamu laay leeram yi moo raw yu jant yi moo raw yu rafet ngëm ci baay moo di ci jéem a roy jikkoom waxee wiiw jëfee wiiw maandu lay gën ci taalibe ziar naa la baay laay yow ki doyloo sa ziyaar naa ñi ànd ak yow ndigeeg yow ku ziyaar soxol dootu yow day tooy ni gi rek baawa ku yaakaar ci yow du sooy ba delloo merum aw ma man de waa duniya lu nuy bañ woote ba te bàyyi laay li muy digle ka wax moo di jàll ba libaas ne bu leen jëw fen yéen bu leen bokk ci li bàyyi laay di digle ngoogu di leen jàpp tey sellal di laay laay ca jàkka ja li bàyyi laay di digle ngoogu siraat géej gu lay rëy fuur da cay xiir noonam yaa ñu faf gëm limaamu laay mi xam seydina limaamu laay dafay xool borom tàngoor fayloo ko beelam baa ñu fef gëm limaamu laay mi xam yoon kon ziar naa la bàyyi laay yow mi doy lool sa yoono ziar naa ñi ànd ak yow ndigek yow ki am ma ziar naa maam limaamu ndawal borom ba ku dee daa xam ni bay lay mooy yonen ba ziyaar na maam li maam li maamu ndawal borom ba bu dee daa xam ni bay laay mooy yoneen ba